Sarr euh, Benno Bokk Yaakaar alors est-ce que personnellement vous êtes déçu est-ce que vous vous y attendiez oui en fait <coughs> Maïmouna Lor en fait après avoir euh, rappelé que c'est un jour historique aujourd'hui pour le Sénégal mais c'est un jour historique aussi en fait pour le président Macky Sall c'est ça la vérité moi je suis pas déçu je suis pas surpris je suis un acteur politique que je, me considère comme étant un acteur politique majeur waa je dois pouvoir liir la situation euh, xam ne li président def en tout cas man bettu ma parce que ku xam ku xam nit ki <coughs> euh, li mu wax tey euh, warul a bett am nañu ko fii lu nekk teg nañ ko fi tey jii am nañu waroon jox baalu àq parce que dëkkuloo nañ ko fi mu dëkkul jox nañ ko jikko ji mu amul question de valeur yi nga xam ne génn na ko ci discours bi moom la wone ci taxawaay tey parce que sénégalais yu bëri jóg nañu taxaw ne ko ñun la yow la bëgg nga ñun nga nekk suñu candidat euh, muy ay maire muy euh, ay population tout court jóg nañu ne ko yaa war nga mën a nekk suñu candidat mu am yu mu xool bu njëkk bi mooy nañu ko fàttali ne wàlli constitution bi réglé nañ ko bu yàgg man d'accord maag ñiy wax ne Macky Sall amul woon droit nekkaat candidat loolu Euh, mun nañu ko régler parce que quand même bi mu bi ko conseil constitutionnel rendre son son avis décision bi mu jël en 2016 ne ko mandat bi nga commencé munoo ko boolee pour wàññi sept yi nga bëggoon def def ko cinq ans mandat bi c'est hors de portée day war na ne mandat bi démarré 2019 moom moo a nekk mandat bi nga xam ne mooy bu njëkk bi loolu donc amoon na droit. mu nekk candidat te sax d'ailleurs di xew ci Sénégal gis na ko de grands juristes ñi nga xam ne ay prof université lañu agrégé en droit ñii ne la war na mën a nekk candidat war warta ma nekk candidat situation mel noonu présenté nit ki ci boppam moom mooy jël ay responsabilité moo tax boo doon dégloo président Macky Sall à tout moment da doon wax la question de la candidature une question individuelle et aujourd'hui il l'a démontré en montrant que valeur moom mooy gën lu nekk tey jii Macky Sall dafa jox leçon à la jeunesse de ce en fait Euh, nit mën nga ko dëkkal li ñuy wax en yekkal nit ci gaalu xaj yomb na mais en fait doo ko ci fekk tey jii Macky Sall loolu la woon pour le Sénégal renoncé na ci li nga xam ne amoon na ci droit président Macky Sall mooy nekk le premier présidence bi nga xam ne dina organiser élection sans bokk ci au Sénégal mos fa am cohérence dong la parce que li mu waxoon waxaat ko kenn mosul dégg man chaque fois bu nga demee débat ñu ne la en fait troisième mandat deuxième quinquennat et cetera man leen fa wax leen ma fan leen président Macky Sall waxee que moom nee na du candidat ba pare en fait dellusiwaat ci tey ji démontré na effectivement que li mu doon wax cohérence la taxawaay la malgré son excellent bilan parce que loo mën a wax Macky Sall aussi bu ñu ñëwee sur le terrain du bilan mais c'est un bilan extraordinaire ñëpp mën nañ ci d'accord donc pour dire daal li ñu gis tey cohérence la Ah, tegoon na ay jéegoom waaye nag dama bëgg fi may jeexale mooy président Macky Sall ku ko xam am na ku ñu ko doon waxtaanee fi léegi. du moom ci pression pression lay réagir. ñu yaakaar yëpp bu ñu ko bund xaatale wala ñu jéema pouse pousse wala ñu ñu menacé moom mooy tax mu changé defu ko dafa xaar ci teeyu bakkanam ci njekk wax na effectivement li ñu doon xaar ci moom moo tax ñu koy rafetlu.